asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu salli wa ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa sallim billahi sahida uh, eh, musidɓe gambiya uh, eh, musidɓe an remoɓe gambiya e eh, min ibrahima soriba operation udp lafa e komin arta ɗo yewtududa e moɗon ɗum woni update e mi yewtida e moɗon e affaire yeeyugol e sodugol gerte ɗe remuɗon onon remoɓe gambiya hande o update an hande ko yewtudugol e moɗon affaire tampere moɗon Eh, won tampere nde annduɗa hiɗon hiɗon hiɗon naɓa nden tampere fewnuɗo e sudugol guerte mon e yeyugol guerte moɗon eh, hunde nde annduɗa e hibar momin nani hanki e ka e social media gambiya ɗo ɗum woni wondema hiɗon naɓude guerte moɗon onon remuɓe e nder leydi gambiya remoɓe gambiya hiɗon naɓiɗe hiɗon notude e ka sekkoji hiɗon naɓi hiɗon pesana guerte moɗon on hendaki kalis mo haka wonɗo e hiɗen wawi wiide joni yonima ɓuuri lewru ila guerte fuɗɗa pesede e ɓoyata yona lewru ko balɗe seeɗaji heddi e mi ɓuri sikkude ko ñande nayyi décembre fort décembre traiti udditi lewru maya e woni e dimas eh, dimas luleruma yay ɗum noon ko wigol on wondema remoɓe gambia de on foti darande hoore moɗon eh, e minen e amen on udp united democratic party e yeesoyagal his excellency loya usenu dabo ko nafa gambia nafa remoɓe gambia ko onon woni priority sa ka 5 points agenda ka hammeji joyi ɗi annduɗa ko toɓɓe joyi ɗi annduɗa ko ɗum udp suɓi laamu gambia laamu udp si ari gambia ɗo ko wawata waɗande e, e, e, yimɓe gambia ko remoɓe ɓen woni number one par que priority agriculture sa demal ngal ko demal ngal woni fop sa <clears throat> hiɗa haala fi cellal a ñaamu ko cellal sa nani ko ko ko ko ɓura heege ɗum noon honno ko ɗum waɗi agriculture ko ɗum agriculture no ko damal ɓurgal forude ɓurgal jonnede fayida e nder united democratic party e, e agenda ɗum woni feereji ɗi united democratic party wallini e sa daari manifesto ko ɗum woni kadi pehe ɗe united democratic party wallini ɗum noon ibrahima soriba opération udp lafa e o opération minen min wi'i onon hannde fewndo ɗo ko onon ɓuri men wonande onon ɓuri wadde fayida e golle amen en yewtere amen nden fiyugol wondema laamu gambiya daranike on par ɓe daranaki on ɓe hittinani fi ɓe anda on hitande wo hitande ko ɗayne ɓe waɗata on par ce que waɗani on prix ɗum ɗo te on prix guerte onon jooɗi yewtiɗi ɗum wona hunde nde annduɗa no foti wonde par ko onon remata guerte mon onon ɗaɓɓata awdi mon onon sodata engrais mon onon jeeyi e, e moɗon si on remi ha on pari ko onon on fota joɗade yewtide ɗon yewtide ɗon ko jelu ara inna on président ara e meeting makko meeting ji ɗi ko meeting ji politique o yalta o wiya o wiya ko meeting ji ɗi annduɗa ko fotu yaade o yewtida e, e, e, e moɗon no wira noon midɗi people to kono e ɗin midɗi people toji ko politique o watta toon o ara o daro yeeso moɗon o enna on prix guerte hikka toon ko nanngam kilo ko nanngam remoɓe gambia est ce que ko noon ko laamu ko laamu jonni on awdi wona laamu jonni on gese moɗon woɓɓe moɗon meɗen anndi luwa e ɗen sa remoɓe ɓe ɓen sooda e gese engrais so ɓe addi ɓe wiya ɓe waɗi subvention ɓe ƴetti kalis laamu ɓe nattini hen fa hen kono en yi'i ɗo wondema engrais tampere engrais en yi'i no arino ɗo jamanu mi annda ne en yi'i en yi'i o yaltuno o wi'i wondema engrais wujjama engrais manki engrais manki ka ka, E, e, e, e laamu ɗi annduɗa nden nden engrais no fonno engrais nde ɓe soduno fi duuɓi ɗiɗi ministre of agriculture nden hitande en yii o yaltuno o mettini ɗum o wi engrais nden fof wujjama kono honɗum waɗi hay fuu si yaltani e muɗum on ministre wonnoɗo on wattu ko honɗum waɗi ko ittumo o naɓimo nokku goo o naɓimo ambassade o ko engrais mon wujja par que o kalis leydi moɗon naamu lempo mo yoɓoton ko ɗum ƴettano soda fi duuɓi ɗiɗi ɓe ari ɓe ñaami engrais nen fof ɓe wujji nde ɓe waɗi nde ɓe yeeyinde nde fof en yino oto no nanga leydi north bank no fokkiti o waɗa impound on, on oto fokkutuno eyi woni remoɓe ɓen hannde on wawata yeyude guerte mum ko yiɗɗon on rema e no sattiri aron ha o gerte moɗon note ɗum foti wonande on miijo holla on wondema ngu wona laamu ngu annduɗa laamu président adama baro ala haaju e remoɓe ala intérêt e remoɓe ɓen ministry of agriculture en nani ko honorable may fati haali no annduɗa ko wonnoɗo ministre interieur o woni kadi présidential advisor ko jannguɗo ko constitutional lawyer o yalti o, o laɓɓini o wi'i on wondema laamu gam ɓe wawata haɓade tappale ɓe wawata haɓade corruption te kanko te laamu gambia no foti wawde wurnude hoore mum yimɓe gambia no foti wawde remude ko ñamata ɓe ñama ko ɓe remi ko ɗum woni gonga <sniffs> ɗum woni gonga <sniffs> ɗum noon ko udp rek jogi caabi on woni solution ndi ittugol on e tampere moɗon hara so ko on joɗoto yewdi ɗon e laamu hara laamu addanayi on bagasuji ko ittirton nebban itta nebban gerte gambiya ñaamen nebban ɗan remuɗe nebban gerte welɗan haro a nebban leɗɗe ma nebban ɗan annda honto iwri hara onon jogii gadinji moɗon on waway ko remuɗon kon wawete waɗede ɗo waylite ɗo waɗe ko yarete ka leydi gambiya ɗo onon ne'oɓe baali livestock owners hara neyi e beyi e baali e nayi e, e, e, e kala ko wawɗo ne'ude hara on wawa heɓude nafa mum gambiya ɗo ko ngu laamu united democratic party wawata on wallitade hande update on ka yawire e haalaji ɗin tati ko ɗum woni accite hakkil ɗum ko exemple ko hollugol on ɓe wawata te ɓe anda ɓe wawata te ɓe sikki ɓe wawi te ɓe wawata ɗum noon onon remoɓe gambiya ko onon woni ɓuri hewde gambiya ko onon ɓurata wotude ko onon kono on ala ɓe waɗinani on fayda ɗum noon haray ko raɓɓindigo rek hollan wonema ko musidɗo ɗon ibrahima sori ba koyna ha katon kala ka remowo woni fuɗɗote miijitade fi argol united démocratic party iwe partiji hedditiɗi iwe npp alon united démocratic party are united democratic party ko on woni parti mo annduɗa inchallahu rabbi kanko winata ɗo élection 2026 wini ɗo 2026 ko remoɓe gambia woni priority e, e on assalamu aleykum wa wabarakatu ibrahima sori udp lafa on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi allahuma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina mawlana muhammad wa kafa billahi sahida eh, sama mbokki béykat yi Gambia eh, sama mbokki béykat yi Gambia eh, maa ngi leen a nuyu di leen jaar di leen ñaanal incha allahu tey nag Ibrahima Sori Ba opération UDP la fa dama ñëw rek pour waxtaan ak yéen gannaaw bu ñu déggee ci temps yi ci rajo yi ak social media. Eh, dégg nañ eh, temps yi eh, mbirim gerte bi gerte jënd gerte bu jaarut yoon fii ci Gambia dégg nañ sa fu mu ne nekk nii gerte gerte yi ñu ngi ko indi ci seko yi di ko noto ba léegi am na ay béykat ñoo xam ne am nañ seen xaalis waaye am na ñu bari ñoo xam ne jotuñ ci seen xaalis si gerte mbéy nu mu méttee ñeneenti weer wala lu ko ëpp nga béy nga jël sa gerte nga indi ko nga war koo jaay nga jot sa xaalis nga dem nga jënd ceeb nga jënd li nga dundalee sa njaboot yow nga indi loolu te bu buñ dooree di peese gerte be tey léegi tey mu mat weer loolu moom naxarul nañ ko te loolu moom dafa jéggi dayoo loolu nag li ko waral mooy nguur nguur nguur président Adama Barrow nguur goo xam ne italut len amut seen ite itelul nguur boo xam ne itelul béykati Gambia te béykati Gambia yenay boo déggee réew mi boo déggee Gambia yen ñun la ñun béykati Gambia man man sama bokk ci parce que man nit béykat la waaw ñun. béykati Gambia nguur yi président Adama Barrow itali ñu te ñun ñoo gën a am solo loolu nag doy na doon doy waar te boo leen seetloo at bu nekk nii la gerte gi nii la noote rek. waaw boo leen seetloo président bi génnoon na fi bi mu génnee ci tournée boobu mu doon mu doon dem naan ne day nemmeeku Gambien si wala béykat yi meet the people store te ñu gën gën ci ràññee politique bu baax a baax dafa génnoon mu mu ne leen mu wax leen prix bi mooy géndee bu nguuram di géndee e, e, e, tooni gerte ren te loolu sax doon loo xam ne jaarut yoon parce que yéen béykat yi da ngeen war a toog ak nguur muy GGC muy muy agriculture wala buntu bu mu doon ngeen waxtaan seeni i gerte nit ki li nga béy li nga moom boo koy jaay da nga war da nga war a waxtaan da nga war a bokk ci prix bu prix boobu noonu fi ñu koy waxtaanee wala niñ koy teralee waaye déedéet day ñëw ñëw rek ñu teg teg prix ñu ne lii lañ koy jëndee loolu nag loolu la te xam ngeen ngeen nguuri président Adama Barrow italut béykati Gambia kon béykati Gambia ma ngi leen naa ne United Democratic Party parti eh, ci njiitalu His Excellency Lawyer Ousainou daabo rek moo mun a suqali eh, béykati Gambia fii ci réew mi xanaa rek ngeen jógee ci parti yooyu noonu ngeen jógee ci NPP wala yeneen parti ngeen ñëw ci parti United Democratic Party UDP pour ngeen mun fa mun mun a gis ne mun mun gis ne 2026 eh, ñaari at. ci kanam dinañ fi génnee nguuri président Adama Barrow samp fi nguuri United Democratic Party nguuri UDP UDP rek moo mun a sukkali eh, eh, eh, béykati Gambia wala buntu bee mi gis nañ ne UDP soo leen seetloo bu baax ci seen ci seen ci seen juróomi juróomi ponk wala mbokk ay pexe parce que nguur da ngay am pexe nguur doo war a ne rek waaw neex làmmiñ rek wala mën a wax rek rek taxul ñu nguur day day tegu ci ci pexe pexe lay doxee waaye nag United Democratic Party seen seen juróomi ponk yiñ teral mooy five point agenda buñ bu ñëwee ci nguur agriculture moo ci gën a am solo parce que boo déggee nit yaa ngi wér balaa ngaa wér il faut sa biir fees waaw ku xiif mënul wér boo déggee ñu ne wér bu yaram njàng dugg na fi génn na fi agriculture buntu mbéy mi moo gën a am solo ñun nag UDP dañ dañ itel ñu faydaloo buntu mbéy mi béykat yi bu boo leen ñëwee ci UDP bu UDP bu ñu faloo liñ leen a defal mooy ñu toog ak yéen ñu waxtaan ak yéen mboolem li ngeen béy niñ koy jaayee muy gerte gi muy yéen ñi nekk ci naako yi ci gaadin yi waaw su ko defee ñu mën a indi fi ay jumtuwaay ay isin ay machine ñu mën fee suqali li ñoo liggéey ñu def ko ay ay limonade li ñu naan ñu jaay ko wala ay juice ñu jaay ko ci réew mi xam ngeen ne gerte bii. amoon na fi time time yaa jaawara gerte bi dañ ko daan génne fii ci saaro wala GPM bi ñu ñu def ko diw waaye diw diw gerte amatut te moo gën a am wér yaram xam ngeen ne fu ne nii diw yi ñoo lekk mooy diwi garab yi nii wala yeneen xeeti diw yi nga xamante ne xamuñu euh, fu ñu jógee te te amalul ñu wér yaram loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk am nguur nguur boo xam ne nguur nguur bu jaar yoon la. waaye ngur boo xam ne moom fa tabaarikàlla li yàlla xam doy na li ñu war a def mooy ñu ngee béykat yi ñu jàppale United Democratic Party parce que at bu nekk li ñoo daj coono bi ñoo daj ci suñu ci gerte gi xam nañ ko xam nañ ko te ñun ñoo fi mboolem ku fee falu ñun béykat yi ñoo koo fal ñoo fi génnee président Adama Barrow ñoom ñoo gën a bari ñun ñooy ñun ñoo gën a woote ñun ñooy votas ku fi falu mboolem ku nekk ci place fii béykat moo la jur ci xaalisi béy nga jàngee ci loolu nga amee li nga am waaye bu ñu toogee di ñu jooyloo suñ affaire du du ñu itel kon nag ñu ngi leen a woo xam ngeen ne mbiri engrais dafa dafa dafa defa xam ngeen ne mbéy nu mel yaa moom sa sa sa tool nga jënda sa jiw nga jënda sa engrais léeg-léeg sax ñu ñëw ñu campagne ñu leen ne engrais bi dañ ko jëndalu seer seen xaalis nguur lañ dugal ñu sob ñu mooy subvention pour ñu mën koo am ñu jaay leen ko lu yomb subvention xaalis boobu xaalis yi nguur la ci kees nguur lañ ko jëlee te kees yi nguur yéen a ko yéen ay na eh, eh, fekkat yi naamo yi seen kees la ci lu yàggul noonu ci ñaari at ci gannaaw gisoon nañ fi tapale président bi génnoon na fi mu ne engrais dañ sàcc engrais engrais engrais at engrais boo xam ne dañ ko jënd ñaari at lañ engrais ñaari at lañ jëndoon waaye ay njut njaat wala ay tapale am ci engrais bi ñu sàcc engrais bi gisoon nañ fi oto boo xam ne téye woon nañ ko boori North Bank ep engrais lu mel noonu waaye lan moo xew ministre bi nekkoon time boobu agriculture lan la def def ko jël mu yóbbu ko mu yóbbu ko ambassadeur dara génnul ci loolu lu mel noonu ak lu mel noonu tappale ci bunti nguur bes bu nekk loolu la ñoo dégg kon nguur gii nguuri président Adama Barrow duñ munoon mun a sukkali eh, eh, eh, Gambia surtout yéen béykat yi wala ñun béykat yi kenn demut ñu des kon nag liñ war a def mooy ñu seet ti temps yi dégg nañ koo xam ne ministre la woon ci time nguur yi Adama Barrow wala adviser muy honorable Mai Ahmed Fatty génn na. mu mu garal garal mu ne e, e nguuri président Adama Barrow duñ mun a xeex tappale muy corruption yàqu yàqum xaalis ci buntu buntu ci buntu buntu nguuri nguuri Gambia wax na loolu te kooku doon koo xam ne ku am xam bu màcc la te constitutional lawyer la lawyer la kooku li mu wax mooy dëgg kon nag e, te mu mu mu mu wone ne bunti bunti mbéy mi agriculture doxut xaalis bu bari mooy yàqu ci ci bunti bunti agriculture te moom moom bu waree toog moom dafaa gis ne fii dinañ fi béy loo xam ne dinañ ko fi mën a lekk dinañ ko fi mën a jaay te mooy agricultural eh, eh, mécanisation loolu dëgg la waaye président Adama Barrow nguuram duñ mën a def loola duñ mën a def loola loolu itelu leen kon nag yéen waa Gambia béykati Gambia na ngeen seetlu bu baax xam ne United Democratic Party rek moom mun a sukkali réew mi kon ñu ñëw ñu dugga ci United Democratic Party ak doole. ñun Ibrahima Sori Ba uh, opération UDP la fa ñu ngi leen a woo di leen ñaax pour ngeen ñëw ngeen jàppale United Democratic Party ngeen ngeen farleel dëgg du farleel mbokk. du farleel koo xam ne yéen a yéen a benn gox déedéet farleel koo xam ne dina mun a yóbbu réew mi sukkali réew mi réew mi xiif lañ fi am tey ñu ku añ yaa xalaat ni nga reeree kuréel yaa ngi xalaat ndekki boorem koo xam ne boroom njaboot nga gis nga li fee xew gis nañ nguuri président Adama Barrow gis nañ ni ñu yokkee lempoy ren gis nañ mboolem loo xam ne kayiti nguur la dañ ko yokk ñaari yoon ba ñetti yoon yéen seen gerte gi mën leen koo jaayi mënu leen jot ci seen xaalis sama mbokki paykat yi Gambia aca leen ñu génn ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu itteel suñu bopp kon nag asalaamaaleykum rahmatullahi barkatu Ibrahima Sori Bala opération UDP la fa asalaamaaleykum allahuma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana muhammad wa sallim wa kafa billahi sahida mbaɗin gambia sene laalu Eh, gambia senelalu eh, mbaɗigol umbal kontonna bake mbeɗu halal en ɓe eh, mo ɓe jarole inchallah rabbi brin koyna fo kato on albaɗi malam ibrahima soriba udp lafa ibrahima soriba opération udp lafa update o bimɓe kaca kela altol gambia safontol gambia senelalu uh, na tiyo ñinan uh, tiyo ko uh, na tiyo be ŋataŋo kono uh, na tiyolu uh, marandin uh, sekol to dulal to tarin e tuma men na ŋa seede seede koyol soto ŋa moyi kibar bundal to radiol ba fola uh, ŋa momoy e, e makati tundo to central river region wosila ɓe diyamula e batadalum mel ɓe laaren tiyol kan tiyolu mel yalon ko tiyol ɓe notorin to kodi man dino dol ya e, e, dol yela tiyol wafu yela ko dol soto dol ma wafi uh, andun ɓe ga senola kuwolonne e eh, ñin gambia uh, nsafo mansakunda président barola mansakunda mo mansakunda altime yalon ko iman senelalu ña ña soto imalu hati waya kendin bi fanantela update o inchallah e, UDP uh, uh, operation UDP lafa uh, United Democratic Party His Excellency lawyer Ousainou Darboe la ñaaton kaya koto pati meyalon ko o le senelalu la ñaasoto o le ñanda al ñaajo fita la ñim kan ni atara inshallah mbe ka futa nga ñim mansa kunda lawyer Ousainou Darboe la UDP eh, sembentu ya nga karto di tambindi 2026 eh, wote eh, men kana karta mangana akuma yata bake sene yata mbema kafo ko barola mansa ko ndamano imalon andun imam pare kalon ko femmu komin kafo ati o wati nyamen mansa moto baro kanata baro nala mansa kunda bulle moto ka bale walin andun nimman hakkilotu Uh, uh, moto si tunen no kono le a'udhu billahi minash shaitani rajim e kumayata wolem nyinde ko ni ajende be diamu kan aliye be nyin jihad kono nyimu jihad dan leti pour ka gambia o gambia dum altol senelal le kumayata je kato ntol senelal le siata be kono ntol le siata ndolle ndolle ndolle siyata gambia sénégal le kam mansakunda balundiya neyaje mansakunda ɓe namo sotna neyaje mansakunda ɓe kuɓe ku tokkela sénégal le bi jang le le mo wululalti sénégal le mo alfalti mojama bi jang i baluta sene sene sene koɗol la sene koɗole karandi sene koɗole mo jamaɓe mansakunda to bi ibal kumbondila i munafantalla koɗolla i karantalla koɗolla niyaje fana ñin mansakunda barola ñin mansakunda naata jang altol sénégal le wulta birin coalition wato ale coalition sembentuya 2026 eh, 20, uh, 20, uh, 2016 ale 2016 coalition of sembentuya ale yaya jamɓe bondi jang ale ñin lannaya soto andum bi mbe mbewo batale kono barola mansakunda la pata mbadi gambia senelalu aliye allah aliye seno ke seno batata kari saba kari nani wulo kono ali al tolletamu allah kenol ti al tolletamu allah allah allah turol kari saba kari nane aliye o samba masake ba, president baro funtita narin ala mitingol to ala middi people to to momen na funtita a akata ani ani gambiano le kacha surtu senalalu bari ngaje le ko politiko ke le, le ka taraw mitingol to tarin a funtita je ay ay seno ay nyinan tiyo da fo alien aba sanna men na tono mansa kunda aba sanna men wo fango me yalon ko fango man nin sila manta wo manke bunyati imal hati niyal hati albe silale aliye tiyo da fo feŋo do kula ye pareya waafila moye na a ye a foyi ko mba sannaye ñine la hani ye tara mansamu kaatu meŋ ñanta wo lemu ali si ali ali ye daafo bari wo buka ke san wo san ado lemu i kana la ye a faale ko mba mansakunda ba sanna ñine la ye a san al bulu bari i buka fo ko mba donto la abe noto la credit buying i buka wo fo de bari na tata a ka laban mu ne la noto credit buying albe wole kono bi albe ngatan wole kono bi albe sularen alla kudolla aliye manolu san anin tulolu ali yal samba ali yalla dimba yal balundi tumo men alman do ko soto na men kari saba kari nani sa wo san senoti bari afelenti bi albe ngatan kono fem fem maw sabu fo barola la la la la la tamandiri jawo men be kerin i k'a fɔ me mal governance tumo men na molle bije molle be iñin place aliena united democratic party party meyalon ko aisenalalu hati party meyalon ko ala ala kan e, e, e, sin, sin memmu walla tombo lulo memmu 5 point agenda ti senole kummayata je ko beeti seno yewle kummayande ko beeti kaatu niyamoye jata kendeya senole mu ni ɓe concorin ite kendeyanola niyamoye kaari kendeyata niyamoye jata kendeya bunda i, i, i konole fata mbegamoye jang fokkunum fokkunum ko former minister interior minister anin former presidential adviser honorable mai ahmed fati meyalon ko itolle itolle coalition man sakunda e addaɓe coalition man sakunda kon onon andun constitutional loyalum a fundita ako barola mansakunda te tapaleya nin kudi tiña ita kelenola même corruption ti mansakunda bundal ako itanola ando anata senola kumo fanan fo anata ita ko gambia agriculture mu bundal ti meyalon ko kodi kasarole be siyarin je ando imam senalalu hati imam fere landi fero membe gambia bondinola membe konko bondinola jang fanata fo ko itolla mansakunda ni sita ibaje lale ko nyim banko ya fam balundi ando nyim banko nyandala ya fam balundi domoro la karola senola karola nsi fen sene no mbe men domola nga, nga, nga fen domo nga men sene nyim banku kan mbe nga tiyoje le manoje le anin ku kote ngolu woto alfere ke aliena UDP katu UDP mansakunda le sal sal, sal la sene fengolu sanno an inalie si alia dafo afelenti E, e, e, altol nako dokulalu al allah nako doku feŋolu isaje ko ite tiñala al bulu nayiridiŋolu ñiŋ bankun kam miŋ feŋolu sidanano wol kono a felenti waati sonnota jaŋ tiya tulo gambiyanolu ka wolu le domo fo saaro le fo gpmb le bi nka balu mune la yiri, tulolu tulolu mele alon ko me dada ñalo malo e potata men a fele courantol fele siyareŋ woto alfere ke aliena mansa united democratic party katu gambia seno kata komale mbeŋaje jan fo sanji fula koma président kama fango funtita agriculture jabanɗo filta je jabanɗo suñata je sanji fula jabanɗo yewle sangal ye bari ni nata e kal nene munela ha e fo man sakunda e subvention neke man sakunda e koɗole la landi ya lafa e jabanɗo san jabanɗo dakole ata yanati ya wafo alma ha bari yew ko ɗo menta ka sobben sonoke kako ɗo engrais wo bota hal tolle ranke ka to hal tello mo namujo lalti namujo ɗum woɓe lafa kan wati o wati ñanan allah fata allah fata lafar ñala meyalon ko sidula saba woto ngajele ko wo agriculture killing om ŋaajele ko wo, wo engrais tappale engrais suña men kata wo, wo, wo mutata jang north bank bari muneke ta wo minister meŋ be wo waato a muneke a taale a ye a samba wo ñoŋo aniŋ wo woto gambia senelalu gambia gambian al ñantale ali je ali ye ke ali ye npp aniŋ pati kononto ali ye na ali udp sembentuyandi pour ka ka al, al al kaŋ inchallahu rabbi 2026 e, e, e persiɗan carte fayo o ni ko wiwdoron aye ko udp ti gat udp masa wole udp masa kunda doron ne siñim bata bondina al kan ha woto ala barka bake ibrahima sori ba update lemu udp uh, eh, operation lafa